ñun opposition ñu war intelligence savoir on a toujours clamé haut et fort il faut ñu def de sorte que Khalifa ak Karim bokk si maintenant euh, l'occasion se présente de mettre ça sur la table mettre ça sur la table tout en gardant le principe que Macky Sall warul bokk. Hmm. man gëmuma ñu dem sur au dialogue national et valider la troisième candidature. on donc même si bu dialogue ak waxtaan amee fi ngeen nekkoon moom jógewuleen fa ah Macky ci warul bokk. compromission mënul am sur ces questions. on peut pas am na ñu proposer lenn maa ngi koy dégg xëy na idée bi gul trop. que ñu repousser élection présidentielle yi d'une année ou deux euh, ñëpp bokk Macky Sall eggal yi mbébétam abal nit ñi tranquillement mais loolu bañaloon nañ ko. Ablaye Wade Ablaye Wade bi Obasanjo mais contexte yi bokkul jamono ji avec euh, exploitation pétrole beeg gaz bi. waaw mais de toute façon calendrier républicain. waruñu koo laal au-dessus mhm. waaw contexte lu mu changé changé il a des choses mandat moom dafa dafa diis. Mhm. waroo ko yokk waroo ko wàññi d'ailleurs loolu la ko conseil constitutionnel. Euh, campagne on a le temps de faire un dialogue de mhm. discuter des questions moom président Macky xam na li andi tension bi warul bokk te warul bloquer kenn mhm. donc na bàyyi ñëpp d'ailleurs la question de bloquer les candidats ça ne concerne pas que Khalifa Sall et Karim Wade ça concerne aussi le président Ousmane Sonko parce que euh, fu mu nekk nii on sait que son procès en appel euh, c'est fait à dessein mun nañ ko yokkal un mois de mhm. sursis pour l'empêcher d'être candidat donc c'est tout l monde qui est menacé et certains sont menacés par le parrainage aussi. man ko mu ñëw donc il faut que ñu waxtaanee même le parrainage le mécanisme comment l'améliorer comment faire de sorte que man je pas moi je suis informaticien quelque part. Mhm. je sais que c'est possible que ñu permettre aux partis ñu am euh, une ñu am euh, accès à l'outil à distance sax euh, pour def des tests par rapport à leur fichier de parrainage. Mhm. ñu mm permettre la nga def euh, par exemple dix tests. Um, comme ça tu peux corriger les ouais, erreurs régler et avant de déposer mm -hmm. donc si vraiment l'intention c'est de permettre à ceux qui ont des parrains de participer on, on a des moyens techniques pour permettre aux gens de. am na am na sax ñu ne les partis qui ont déjà eu à faire leur preuve euh, les partis de coalition yi nga xam ne am nañu au moins benn député wala benn élu mën nañ leen épargner parrainage bi mais ñu defal ko juste ñi nga xam ne indépendant lañ wala ñu ñi nga xam ne. voilà ah, loolu c'est mécanisme mhm. quand un parti qui a participé à des élections voilà exactement yoo xam ne sa fait moins de six mois ou un an loolu mën nañ ko dugal sax. Mhm. a moins de six mois un an. avec un yooyu taxawu Sénégal par exemple nous avons beaucoup de maires mhm. beaucoup de députés demain demander à Khalifa Sall des parrains